alhamdulilah asalaamaaleykum wa allah allah la ilaha illallah baay Cerno Dem ñu ngi lay Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Baay Jënal Zande ñu ngi lay siyaare waaw Mawlana Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu xam nga moom ca Fuuta la juddoo ci dëkk bu ñuy wax Sinthiou Dangde 1920 moom la judd diggante moom bàyyi ñaar fukki at la kon sëriñ bi magoon na ko lool <clears throat> wala mënoon na koo jur ci ay ci ci ci zahir ba nga xamee ne mokkal na alquran ba doon jàng ci sëriñ bi ñu wax Thierno Seydou Chouara di alim bu mag bind ay téere boo demee ci al adabu sénégal yi bi nga xam ne Seydi Amar Samb moo ko bind di nga fekk ne indi na euh, Thierno Seydou Chouara moom nga xam ne moo jàngaloon Thierno kooku doo ñu ko doon dàkkantal Chouara mooy Chouaraul jaahiliya da koo mokkaloon bu daan ko daan jàngale du ko xool te dafa mënoon a woy lool tamit ndax euh, bàyyi na ci lim bàyyi ci xasida bañ limee bay yi mën na juróomi junne bay ak lu teg ku woy ci fànn yu nekk moom Thierno Chérif Chouara radiyallaahu lan kooku moom moo yar Cheikh Hassane Dème moo ko jàngal xam-xam mu ànd ak moom fukki ak ñeent yoo xam ne mboolem fànn xam-xam yi zaahir yëpp ci moom la ko jàngee moo ko jox tariqa tijaan yi foofu mu ne la mokkale woon muniyatul murid di ko jàng sax guddi aju altine gu nekk ak guddi ajjuma waaye tamit foofu la miine woon di dugg xalwa kon moom teel naa bëgg lu baax waaye mu ne sëriñ bi ba nga xamee ne am na fukkaat ak ñeent ak moom ci la sëriñ bi jógee fii di Fuuta jëm fële ca euh, Makka pour aj ba mu ajam ba pare di ñibbi pour dem Égypte mool ay téereem ci yoon bi foofu la gaañoo ci dëkk bu ñu umu durmaan ci Soudan foofu la génnee àddina mun na fekk moom ba muy jàng jàngoon na ci kutubu tariqa bi xam yàlla waaye tamit gis na ci jawaayul maani ay wax yoo xam ne moom daal déggul ko waaw te xam yàlla rek moo nekkoon ci xolam bi te boobu bu xam foogutoon na ci kaw suuf ku mel ni sëriñam Cerno Seydou Chawra am na te moom la ko yaakaaroon te léegi génn na àdduna télégramme bi ñëw na fu mu nekk di xelaat loolu rek mu ne di jooy foofu la gëfee ay nelaw gént nag sëriñ sëriñam Chérif Mouhamadul Mokhtar mu ñëw indil ko dugub boo xam ne bu weex la di ko jox muy lekk mu saf suukar lool neex lool mu ne mu jox ko benn ñaar ba ñetteel moom mu wax ci boppam ne waaw lu tax shérif mii waxuma ko mu ñaanal ma maa ngi lekk dugub rek du ma ñaanal mu ne shérif ñaanal ma mu ne shérif di ñaan di tufli ci loxoom yi ba mu fees dell mu jàllal la ko ci xar xanamam bi mu raayoo ko mu ne ci noonu rek di sotul shérif mu séen waaye ju naan tëll naka te sëriñam bi la gis ci gént mu ngi ñëw ci melokaani waxambaane dégg nga sol dara yi cub yu xalpulaar yi ñu daan sol yu cosaan yi ba mu ñëwee nuyu ko na ko xasan ndax gis nga sama sëriñ Chérif Mouhamadou Mokhtar mu na ko gis naa ko mu ne ko ndax ñaanal na la mu ne ko ñaanal na ma mu ne ko waaye nag li nga bëgg amut fii génnal fii dégg nga mu ne ci tukkulóor doon waxama mu jig mu soppi ko arab na ko izhab ila alhaji Ibrahima Niass laysa ala wajhil ardi man huwa alamu billahi minhu demal ci alhaji Ibrahima Niass koo gën a xam yàlla ci kaw suuf mu ne boobu moom mësta dégg Baye ba mu yeewoo mësta dégg Cheikh Ibrahima waaye mu laajte am commerçant yi daan ñëw Kaolack na ko xam leen Baye wax ko nu muy def ba bind lettre bu àgg ci moom mu bind lettre yónnee ko Baye Baye liir lettre bi moom ko liiree bind tontu ko jox ko askaaru tarbiya te gisante wuñ na ko nag ci lettre mu koy wax na ko taal anta waladi wa anta mimman yaxmiluuna sirri ñëwal yow sama doom nga te ci ñuy enu sama mbuut nga bokk loolu moo tax mu jógee ko Fuuta ñëw ci Baye. ni ñëwee ci Baye dafa néew ku ñëwee noonu ci Baye xoolal Fuuta la jógee ñëw Baye yaayam mi ngi dund te delluwaatut delluwaatut delluwaatut gestoowut gestoowut dafa ñëw rekk seey dafa ñëw rek seey ci Baye ba fi may wax ak yow nii Thierno delluwaatut xeñtuwaatut dara ndax moom dafa mel ni dañ ko mooñaaleeg Baye attention. notel loolu dañ ko mooñaale baay baay Baye Thierno parti la parti intégrante la ci jëmmi Thierno ji benn ci jëmmi Baye ji benn cër la ci radiyallahu mu noo koo tàqale ak Baye ah moo tax boo ko xoolee mu mel ni Baye mel ne quand dafa bokk ak moom dara parce que lu tax moom la Baye la Thierno Baye la dafa jeex ci baay ba doon Baye radiyallahu taala anhu léegi moo tax euh, moom bi mu ñëwee gestuwaatul leen ndax lan moom benn ban boobu rek la doon fontu dégg nga moom fu mu jógee mu ngi jógee ko ci Fuuta ñu ne bañ koy wax ca ca ca ca bichara bi di ko xamal ne ko eh, waajaa nga ne le moom la kooka ci ka jëm ci moom la yëfi di matee dañ ko wax ne ko fan fan la fi fi jant bi di fi jant bi di fenkee fii jant bi di sooyee eh, fa mu jógee mooy noor fii mooy fan mooy sud si ñoom mu traversé fële comme étoile boobu nga xam ne moom lañu ñuy wax étoile polaire nord bi war a ñëw fekk si fi nga xam ne fi la jant bi di soyee fi la weer wi mu mat wi di di di di di di di teroo muy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ba mu ñëwee nag taalibe bu doon ut si lu baax la ku bëggoon yàlla lool mar ko lool gis ku ko mën a àggale ci yàlla gis ku ko mën a jox dengare càkkuteefam mu ñëw rek euh, samp xaymaam ci buntu baay wax la maam Abdou Niang waxoon anax turax janaaba cheikhi rajawtu minhu dural maani sama gëlëm bi yësal naa ko ci ron sama sëriñ bi Cheikh Ibrahima sallallahu alayhi wasallam dootu jugati ba penc yàlla dem di seeti ji beneen sëriñ waaw ma yaakaar ci moom nag ay tëbbin yoo xam ne tëbbini urus la Ceerno loolu la waxoon toog ci bàyyi fii di ko xidmaal da ko wax mu ne daan xidmaal naa sama sëriñ ci sama kurus ak sama loxo sama kurus mooy xalawaat yi moo ko doon féetee ndax bari na juróom-ñaari at ak lu teg yoo xam ne ci xalwa rek la ko nekk mun a xalwa bu mu dugg rek dugg beneen xalwa loolu sax taxoon na mu yéex am njaboot yoo xam ne njaboot yu mag la euh, ñaareel ba tamit dégg nga de ci mbindam ci xalimbaam danaan bindal baay radiyallahu anhu moom na ay mbóot yoo xam ne secret yoo xam ne moom rek moo ko daan bind di ko yóbbul mu koy jëfandikoo bokk na ci ab taalu six rek yeneen ak yeneen ak yeneen waaye xalimba googu moom mooy ci xam-xamam lay wax mm-hmm. am na laaj yu daan yu ñu daan laaj baay Baye da ko daan yónnee Cerno Cerno tontu ko. boo demee ci euh, Nurul Kamal fi Machadou Rijal di fa fekk euh, Cheikh Xaane ak ñeneen ak ñeneen seen laaj yoo xam ne laajoon nañ ko Baye. Baye tontu ko na ko na ko wax ko na ko na ko tontu. bu Cerno tontee bu ko yóbbuwee ci Baye Baye bu liiree ba pare dafay bind saxaay danaa wér na ci ñun. am na jamono nit ñi buñ ñëwaan ci Baye surtout naari gànnaar yi nga xam ne ñoom maa fa moo leen booleeg Baye ndax ñoom subafaaw lañ ndax ñoom borom mi xam-xam lañ. waaye xam-xam yàlla boobu noonu bu sew boobu moo leen booleeg baay am na jamono ku ñëw ci ñoom daf lay balancer cam dégg nga tontu yooyu noonu ñi ngi fi waaye euh, góor yàlla bu tollee foofu pays yàlla bi daf koy waxee loolu mooy ay waari waaridaat lañ koy wax waari waaridaat yooyu ñi ngi fi dégg nga saraana ay téere yu mag yoo xam ne ay borom xam-xam ci tarixa bi ñoo ko fi ñoo ko fi defoon saraana leen ah dégg nga euh, kon Thierno lim xamoon. xel ak borom xam-xam yi lottoon nañ pou àgg ci gox yoy pou man ko ko laaj waye yi nga xamne do nañ ko laaj li dalé ko dalé ci fànn yi nga xamne ñoy ñooy l'islam yeb yëpp jàmmal nañ ci way laaj yi gëlëmal nañ leen ci nga ñew nak ci xam-xam yi nga xam ne xam boobu nag euh, dama wax ne jamono dafa xawa tardé parce que jeunesse nouvelle génération bi waroon nañoo référencé wu jëriñoo ci Cerno pour gëna dem. ci xam-xam yi nga xam ne ñooy xam-xamu science yi parce que noonu la ci jege woon tey Thierno noonu la doon waxee ci anthropologie ci xeer yi cosaan xeer yi seen cosaan yi ba dellu ci seen position climatique yi position géographique yi Thierno dégg nga noonu la daan waxee ci doj yi waaye noonu la xamee woon science tamit li nga xam ne moom la ñuy wax physique ak chimie loolu la ci jege woon tey ku doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag noonu la war a mel te loolu moom firndeel na ko kon Thierno radiyallahu taala anhu Eh, wax ci moom ci xam-xam dafa dafa jot li ñu war wax ci xam-xam xaju ci benn émission xaju ci ñaari émission xaju ci ñetti émission xam nga lu tax parce que lu ko dañuy dellu ak moom ci voyage am yi waxuma la yi mu daan sotteeku fii nii suba ba jot ngoon jot man mii rek am naa benn benn benn benn souvenir personnel boo xam ne ma ànd ak sama benn doomu bàjjen ñëw rek indil ko tegal ko reexal ko naa kii fii gannaaw tàkkusaan fii pour mu ñu si woo ñu ko jàngal. xët bu njëkk bi tàkkusaan ba timis munuñ koo jeexal moom noonu la jege woon dayo ci xam-xam waaye léegi nag waxuma la dars yi mu doon joxe fii waaye boo génnee dem di dalee diggante Nigéria diggante Niger Soudan ah ba Ghana foofu majalis yi mu def foofu nga xam ne ay junney junney majalis la ci ay tukki wute majlis bu ci nekk lam fa toogoon di sotteeku ci xam-xam yooyu suñ ko jëloon tey di ko transcrire di ko bind ay ay volume la ay volume lay doon cerno eh, ak xam-xam loolu ay ay ay ay ay waxtaani waxtaani waxtaani ay waxtaani waxtaan la war nañ cee sóobu nag. nekkoon nag xaritu Seydi Ali lool ci xam-xam jaxasoo woon nag Cheikhaan mën na aba mi nga xamante ne mooy woy woyeem réem yooyu jaxasoo nag moom jaxasoo nag Cheikh Omar Touré ñu ñëpp ay kilif lañ yoo xamante ne ñoo magoon cernu ci ay adde waaye nawloo woon nañ ko ndax xam nañ ne ci xale. kee at xale la waaye ci mag ci ci xam-xam mag la kon kooku mooy Cheikh Assane Dème radiyallahu anhu bëri na ay borom xam-xam yooyu wër ci réew mi këram gi lañ jaar Moustapha Gueye mu ngeen dégg ci rajo Sénégal ak télé Sénégal fii la nekkoon ci kër Cheikh Assane Dème moom ñëw na ba fii sax confirmer loolu wax ko dëggal ko Cheikh Abdoulaye Wilane mi ngeen dégg borom sàq mi moo wax ci làmmiñam ne bëri na ay masala yoo xamante ne damaa jaaxaloon lool ci maarifatu billaahi fii laa ñëwee kër Cheikh Assane moom ma ko faram bëri na ay borom xam-xam ci réew mi nga xam ne tey ah cerno si dundam daan nañ indi joxeral maani mu ko waaye waaye bul fekkee cerno ñu tegal ko joxeral maani mu dugg ak yow ci maani yi kon da ngay foog ne rek Seydi Ali si moo toog wala Cheikh Tidiane moo toog radiyallahu taala an ni mu ko déggee néew na ndem am na waaye damay wax néew na rek ngir ci modestie mais ndax am ndem am na ku ko gën a dégg joxeral maani dégg nga mu ñëw fi indi bi muy ñëw bagage diko ci top mo jaxal man ya kamil moo tax Cerno mu mu kéemaane woon ci ci ci deg ci xam parce que no gëna kawé ci yàlla ci maqama no la sa deg di yokko ci alquran moy kamil boobu mu amoon no la sa deg di toll ci jaxal man ci man yoy do moo tax Cerno radiyallahu anhu kemaane won lol doon waar ci xam-xam ci abno jomalut ki amul xam-xam ki ki ki jégg doy ci xam-xam kooku la Cerno Jombal waaye nag nit ku am sekk rek lim seqoon ak bàyyi bëri na lool mosu cee génnee dara mosu cee wax ke wax wax ak nit waaw daf daan wax ne sëriñ bi gis nga néeg bi njëkk muy lakk xam nga du néeg bii nii moo doon néegam cosaanam bi fii yëpp ay téere waaye lalam bi lépp amoon na place yoo xam ne ngaro yi nii leen tegloo lépp ay lettre bàyyi la moom da daan ubbi rek di ko xool di jooy ngir fàttali ko sëriñ bi ngir mbind mbind sëriñ bi ba sax ci bëgg gim mu bëgg bàyyi amoon na benn kudd boo xam ne mu ne dafa ñëw fekk bàyyi di lekk bàyyi lekk lekk lekk ba pare rek raxasut kudd bi de mu ne mu jël kudd bi may ko ko li ceer na kudd boobu noonu juróom-ñaari morsal yu weex la ko la ko lëmasi woon di ko parfoné ay temps dina ko daan génn di ko taf ci xolam bi loolu yëpp bëgg gi mu bëggoon Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu la loolu moo taxoon bagage noonu la ko ko woon fii la ko maanaam fii la ko bàyyi woon daf daan wax naan li ma seq sëriñ bi mbindeef yàlla du ci xam du ko xam sama doom sax du ci taxaw su ma demee ba ragal sama bopp ne man damay génn àddina dinaa ko gas suul ko waaye loolu xam nga am na wali yàlla yoon lu ñu wax yàlla dina ko def njëkk muy génn àddina ci benn at matul sax da at ay fukki weer ci la néegam boobu noonu lakk mboolem kayit yooyu yëpp da nga da lakkaale <laughs> radiallahu anhu kon moo tax ku amoon secret la ku amoon da nga da kóllëre la ku bëggoon Cheikh Ibrahima la waaye tamit ku fonkoon bàyyi la ku bàyyi fonkoon la na moom dafa nekk koo xam ne dundam lépp Cheikh Ibrahim Niass la ko jox lu mu fi nekk gëstuwut mbokk gëstu utut xarit utut àndandoor utut fu mu fréquenté léppam bàyyi la ko dox di ko liggéeyal ci kurusam ak ci xalimaam lu lay wan loolu mooy ne mbëggeelam ci bàyyi mooy ne sekkeram yi nga xam ne dafa doxoon digganteem ak bàyyi lépp daf koo nëbbu kenn xamut sekkere yu dox diggante yooyu noonu. kon Thierno ci boppam booy jox exemple ci bëgg bàyyi mën ngaa joxe Thierno ci bëgg bàyyi jeex ci bàyyi ci lépp waxam nag léppam ci bàyyi rek lay sotti waaw wax na ne man gannaaw ba ba may ñëw fii nii lu ma amoon mooy lan jawaahiril maani laa fi ak kaamil ñëw naa fii liggéeyal naa sëriñ bi li ma bëggoon ci yàlla yëpp am naa ko maqaama yu ma bëggoon yépp am naa ko ku nekk ci ron sëriñ nag li nga bëgg ci àddina lépp nga am ko kon mënoo lu dut li nga am ci mbëggee lépp nga bëgg ko sëriñ boobu noonu moo tax loolu la doon dénk ay njabootam loolu la doon dénk ay taaliweem loolu la doon doxee di ko waxee. waaw ah, li mu wax naan wax naan li mu doon ut ci yàlla yëpp yàlla may na ma ko ci barke sëriñ bi te sëriñ bi li nga xam ne yàlla may na ko mu indi ko fi alhamdulilah yàlla tëbbal na ma ci ba nga xam ne li ma yëg man xam naa ne kenn ëpp lu ma ci waaw kenn ëpp lu ma ci xam nga loolu du wut caaxaan waaw sëriñ bi seedeel na ko. na ko yow waarisu Muhammad yi nga wax na ko tamit na ko yow wali yàlla yi fu ñu am yow foofu nga tàmbalee yow Xasan moo tax mënoo am problème ci seen ak ci seen ak wax wax na ko na ko mbir mu màgg dina feeñ ci yow ci tariqa tijaaniya ay yu bëri bëri bëri bëri seedeel na ko waaye man toujours damay wax ne seede bi nga xam ne mooy seede réalité moo gën a mag sax seeday seeday mbind ndax man su ma la bindalee maqaam bu nekk ma ràngal la ko te fekk euh, prouvé woo loolu wax dëgg yàlla seede bi dafay xaw a des yaa ngi dégg masalan benn waaye ne baax yi am na xam-xam am na nangam gars yi ñëw di la laaj fekk bu luñ wax laajte nga waaf yaa ngi dégg xam nga seede boobu fi ne daanaka dafay <laughs> dafay daanu waaye seede bi nga xam ne moo gën a moo gën a wér mooy seedeek waa ji lim taxawal am na beneen gis-gis boo xam ne boobu bàyyi la moom moo xëy ñëw dugal bàyyi bàyyi na ko gis naa mu sëñ Ousmane Ndiaye nga xëy dugal ma nga xëy ñëwal ma comme man ni ma ko gisee woon maa ngi maa ngi yaakaar ne yow da nga doon ma xamam waaye am na feneen foo xam ne moom Baye Cerno laaj na Cerno Baye sëriñam radiyallahu anhu ci ay maqaama pour mu warloo ko ko Baye warloo ko ko la nag eh, na ko da nga yëg ci maqaama yooyu kon amul sikk ne maqaama yëg na ci nee naa la kon maqaama bu ñuy rangal góor yàlla rek rangal nañ ko Cerno te loolu li koy firndeel duut waxi soppe ci sëriñam waxul taalibi waxi taalibi ci sëriñam waaye daf ci am loo xam ne daf koo jëmal Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu daf koo jëmal seen diggante

ne ko lii nga ma jox mi mbég te mu mbégle mu rëy la mu jóge ko ci pay yàlla bi ndax aabi fii na yi képp koo xam ne doon na ci yontu bi sallallahu alayhi wa ñàkk foog mu gis lii nga gis nii comme ni ko yontu bi sallallahu alayhi wa gisee woon moom jaxratan yaqzatan wala manaaman yaa ngi dégg moom yontu bi sallallahu alayhi wa xotti nañ ko xam nga ah xotti boobu nag mooy lan mu ne bàyyi mu ne aabi fii kuñ ko ci defa rek da nga doon xalifa yàlla danga nga doon xalifa yontu bi sallallahu da nga ko doon kon nag doon xalifa yontu bi sallallahu alayhi mooy lan mooy da koy donn ci xam-xam ah da koy donn ci ci jikko xam-xam cem na donnoon na yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xam-xam donnoon na ko ci jikko bu daan tudd maqaama yi ko yàlla may su paree dafay wax ne man nag duuma kenn matuma sax jaam ci roon Cheikh Ibrahima eh, man laa ci jaami Baay kon kooku noonu la mel ci bëgg Baay looloo doon doxee bëgg Baay rek moom mooy sirru bi ci bëgg bàyyi ci la amee lépp lu mu am ndax bu bëgg toon bàyyi du mën a xidma yenn xidma yi ba am lu mu am bëgg gi mu bëgg bàyyi ak xam gi mu ko xam moo tax mu xidma bàyyi ba yàlla may ko lu mu ko may moo tax it loolu rek la doon dénkaane siru bi muy bëgg bàyyi rek ak xidma bàyyi ndax lu mu xidmaal bàyyi moom ba bàyyi gërëm ko loolu rek moom moo feeñ ci bés bi moo feeñ ci njaboot gi tey foo dem ci àddina boo ne Cerno Xasan dem Tukulóoru bàyyi xam nañ ko waaye dara mayut ko ko nag loolu xidma te pourtant njëkkut ci bàyyi faydu bi tàkk na ba am 17 ans Cerno doo a ñëw ci dëkk bi dégg nga lu mu fi nekk it kenn xamu ko ndax dafa tëju woon di liggéeyal bàyyi mos sa dem ci ay gàmmu conférence déedéet génnut feeñal lu ko yàlla may loolu gannaaw ba sëriñam làqoo kon buñ demee ba àddina yëpp xam ko loolu barke xidma la ak barke mbëggeel la kon loolu mën nañ koo jël référence ci moom moo tax jotaay yu mel nii di ko def ci nit ñu mel nii dafa baax ndax dafay tax ñu ndaw ñu ñu xam fu ñu teg suñu tànk ndax xale su xamut euh, démbam ëllëgam daf koy reer bu ñu xamee suñ mag ñi nuñ meloon ak fa ñu àggoon la fa àggale kon ñun tamit dañuy mën a jéem a lu jaar foofu ndax ñu mën a taxaw ci seen tànk yi àgg fu ñu àggoon. Thierno ku fonkoon ndaw la te tamit ku mënoon a yare la. waaw loolu ñun mën nañ cee wax dara ndax euh, booba mi génn àddina dix-neuf leen am ñun waaw fukki at juróom-ñeent waaye daanaka bu ma fàttalikoo ñun ci suñ fukki at ñett ci leen gëj am jàmm ci maanaam féex ci suñ bopp fajar ñemewu koo ñàkk jóg waaye tamit njàng ñemewu koo tardé wasifa ñemewu koo tardé mu lay yar di la inaaya bu guddi jotee bu ñu reeree ba pare bala moo tëdd faw mu contrôler ndax tëdd na wala tëdd tëddu que bu may wax man bu ñuy wax ñun waxuma doomam mi de ñun taalibe parce que ñun mosuñu am néeg ñun taalibe ñoom mas a bokk fu ñuy fu ñu fu ñuy fu ñu tëdd dañ doon aaye sax ñu bokk moom lekk dem nañ ci biti rek bokk ak taalibe yi waaye ku aaye da nga daan gis daf daan yar dégg nga da ndaw di yee ay itteem ñun ñii def ñu daan dajale di wax ne maa bañ waxambaane buy nelaw gannaaw fajar mm-hmm. boo jullee fajar ba pare dem ji mu ne maa sib naa waxambaane bu mel waxambaane bu bugg a baax maanaam chab bu bugg a baax boo julee fajaroo pare doo doo nelawaat teel sa kurus nga wirdo wala nekkal sa das nga jàng wala bu fekkee da ngay liggéey ji nekkal ci say awraat ba waxtu liggéey jot nga dem liggéey ji waaye di nelaw waxtu woon mu a dafa sib ndaw waxambaane bu mel noonu ba fa mënoon a yar ndaw bu baax a baax te eh, ñun ndaw yi dañ koo jege woon daf leen a bëggoon daayira yi nga xam ne moom leen daan am ceerno ci moom moo génn di def waxtaan wi di yee suñ eh, di yee itte ndaw yi dégg nga di la di la di la yar la defar xam naa ñu ñëwoon ci kër gi ñoo xam ne ba fi ñëw kenn gënu leen a bon waaye nekk gi nekk fii dem leen ba soppeeku ba léegi sax nit ñu baax leen ñoo xam ne ñu ngi wootee ci lislaam loolu yëpp yaram bu mat la ndax yarkat foo nga am rapport bu dëgg ak ñi nga xam ne ñoom nga yar waaye ndaw yi su fekkee ne da nekk ci kaw ñoom ñu nekk ci suuf su dootoo mën a jeexatal dégg nga ci ñoom waaye moom ku mënoon a jokkoo la waaye ku mënoon a tarbiya la tamit daan tarbiya ci ay xikaaya ay nettali <clears throat> su ci pareyaan rek nga jub amoon na suñ benn morom boo xam ne ba léegi dama koy tooñee sax bu Thierno waxtaanaan waxtaanam yooyu rek fan yooyu yëpp ci koor lu koy nekk guddi gi lépp daf koy téye di ko di di di di wirdo waaye waxtaan na bu gëjee rek mu commencé bàyyee di ko waat ma ko yow ma ko yow soxlaat nga waxtaan de dineen fexe góor gi génnaat maanaam boo boo boo ko déglaan buy wax ci saalixine yi muy wax ci wali yàlla yi boo génnee rek yow da ngay bëgg a mel ñooñu waaw te loolu yar bu yar bu kawe la moo tax nag alhamdulilah école am bi nga xam ne mooy école Cheikh Ibrahima Niass génnee na ay ndaw yoo xam ne ndaw yu baax la am na ñoo xam ne jox na leen lijaasa boobu xam naa ne amuñu vingt ans ku mel ni Oustaz Ali Ndaw di ngeen koy dégg te duwu ñoom ñoo ko laaj waaw noo ci basiram la am rek bind ijaasa dégg nga te jox ko moom ak yeneen ñaari moromam waaye ñooñu tey boo demee seen taxawaay gis ko rek di nga xam ne lii la gisoon dégg nga te ci ñoom ñun nag di ay taalib ndaw parce que ñun bi ñëw ci Cheikh Assane Dem radiyallahu anhu bobu ay jankat lañ ñi ngi jang di war def BFM ba brevet wala bac ñi ngi ñëw ci mom 1986 sali Ndaw ci la ñu ñu nga xamantene suma génération lañ Pam ñaan bi doon wax di muqaddam oustaz Ousmane Ndaw ci sangel oustaz Idrissa Touré man mi di wax ak yeen ñooñu ay xel lañu woon ñoo xamante ne bii ñëw si Thierno wallaay buñ amee ñaar fukki at ci lañ yem waaye dañoo branché ci pays bi branché ñu ci fayda tijaniye bi ba fi toll nii man mii maa ci gën a euh, tuuti lii bu jude di wax di wax ci wayam bi ne aarif yi sax maa ci gën a yéesaan àgguma seen xàq waaye maa ngi jënoog askan dëree si baraam ñooñu may wax ni ñi ma lim léegi ak ñi ma limut ñu bokkoon génération 86 kenn ku ci nekk yaa ngi nekk mu xaddam amee zaawiya boo xamante ne yaa ngi ko askanale ci Cheikh Assane Deme radiyallahu anhu. Thierno ak social Thierno ak social parce que ku doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon nu jikkooy ak laa yooyu ni ngi tabee Thierno dërëm mënu ko woon denc te macha allah ku amul wërsëg la ku amul wërsëg la waaye seetal dafa ñim doon noonu lañ meloon. ñim donn duñ leen donn ci alal moo tax kenn moom donnuwu ko ci alal moom ci xam-xam lañ koy donn jub maandu jikko moo tax ñi ngi fàttaliku tukki boo xam ne demoon na ko jëlee fa alal ju bëri bi ñëwee dafa woote woote ñëw leen ñëw leen ñëw leen maanaam nag gars yi njëkkalante ñëw mu séddale leen li nga xam ne moom lay moom la indiwoon gannaaw bu ci séddee ñi nga xam ne ñooy ay sëriñam ceeb bu law kooku mooy cab na cer Cerno ci dundam kim doonoon mbaax dégg nga de jikko ju tedd am yërmaane jooy métiti keneen bu ko déggee dafay mel ni moom moo am métit démb rek chauffeur bi taxoon ak moom muy Cerno Kaldu Ka mu ngi nettali ma benn waaye dafay jógee fenn rek ñëw na ko man dañ maa dama am problème ak tribunal kaza wala sama doom dañ ko tëj xamul sax nag lan moo ko dal waaye def ci ci saas lay jug jël otoom dem pour defe ci intervention waaw kooku dafa amoon yërmaane dafa amoon baax dafa ubbeeku woon dafa bari woon lu mu doon jooy dafa bëggoon yàlla tabaaraka wa taala kon moo tax li ko lëkkaloon ak Cheikh Ibrahima mooy tey li nga xam ne tey yàlla may na ko ko alhamdulilah ba mu génnee àddina ak léegi ñaar fukk ak juróom-ñett la waaye tey bari na xale yoo xam ne sax man naam xamuñ ko mosuñ koo gis waaye bëgg neen ko ngir dégg-dégg yu rafet yi ñu dégg ci moom kon loolu la doon ut moom mooy mu am dégg nga euh, zikra xasana bàyyi ko fii ci àddina waaye tamit am ngërmaan ak yàlla ndax daa wax na man suma ma génnee sax nen ma suul dégg nga de ca àll ba nen ma suul dégg nga de ca marché ba barsax ben place la mm. ngeur maa ne yàlla laa ut rek su ko amee fu ñu ma baxna su fekké da ngay wax Thierno par rapport ak bés bi bés bii ñuy def ni tay muy laylatul kadmiya mu melni tay ñu koy célébrer partout d'abord célébration bi partout rek mérité Thierno la radiyallahu parce que bi muy def goudi Cheikh Tidiane bobu kenn defu ko taa mi ngi wax ay vingt ans mais dañuy wax entre quarante ans trente et quarante ans la wax bi ko commencé célébrer ak léegi léegi Thierno ak guddi gi fii ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mi ngi tudd laylatul kadmiya waaye Thierno daana wax ne laylatu bayatil xilaafatil muhammadiya niyaabatan anil mamlakati rabbaniya ñun de ci liñ xam moo ko njëkk taxawal ci àdduna bi mu nekk nag lu am solo loo xamante ne pay gi ko ci yàlla fay ñun day xamuñu ko du doomam du taalibeem ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamati képp ku sunnaal sunna bu rafet sunna boo xamante ne nit ya rafetlu nañ ko yàlla da koy barkeel dana am yoolam moom mu ko sos ak képp koo roy nga ko ci sunna booba yool ba da koy fekk ci fa kiam. tëdd ba yawm alqiyam ñaata ñooy màggal kat mee ci àdduna bi kenn xamul ñaata la waaw mu kat mee gi aywa loolu moom mooy martaba Cheikh Tidiane yi moom ngay dégg Cheikh Tidiane di wax ne xadamaay xaataani ala raqbati kulli waliin ci maqaam boobu la ko waxee waaw sama ñaari ndëgg yi maa ngi ko teg ci ndoddal bépp wali yi bàyyi nee na moom mooy maqaama alxatmiyatu ak katmiya fu lay waxee tamit ruuxi wa ruuxu sallallahu alayhi wa sallam ka haazayni min yowmi nachatil alami ila nafqi fi suur waaw maanaam bés ba nga xam sama ruuxu ruux yoon sallallahu alayhi wa sallam ba dégg nga ca azal ba ci mhm. yàlla di wal bufto bi noonu leen àndee yonent bi salaa salaam mooy tëbb yonent yi man maay tëbb wala yi dégg nga da ba faw moo tax nag Thierno noon ko di ci def ko occasion boo xam ne def ci màggal Cheikh Tidiane yi waaye tamit profité waale ci tamit jàngale Cheikh Tidiane yi jàngale taarixi Cheikh Tidiane ndax moom bu ko daan def mhm. fajar euh, kii euh, onze lay tàmbalee ba fajar waaw dundu Cheikh Tidiane lépp la lay jàngal bi tafsil jàngal la ay saxaabaam jàngal la karaama Cheikh Tidiane ak martabaam maqaamaam ba nga xam ne ñun ñii ba ñuy xale lu bari ci taarixi Cheikh Tidiane ci leen ko mokkalee njëkk sax ñuy jàng bay fendeeku mën a gën a liir gën a am taxaquq dégg nga de ci ay ci ay waxam radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla fay lay Allah Allah alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi